porter au service de ces causes avec humilité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça a échappé à beaucoup. Quand elle est venue sur la tribune officielle au défilé, dafa nuyu Premier ministre jàll nuyu président Assemblée nationale ministre de la Défense jàll nuyu président Assemblée nationale egsi ba ci man def nii à la tribune officielle Pourquoi elle a fait ça Elle était en train de m'envoyer subliminalement le message qu'au-delà des apparences républicaines, au-delà du protocole républicain, il y a quelque chose de plus fondamental qui nous lie, c'est notre culture, et c'est pour ça qu'elle est venue devant moi elle a fait ça. Et, vous savez, le l'élément culturel est très important. Vous m'entendez souvent xam naa loolu sax du ko wax puisque bu ma ko waxee euh, Kouthia Show il va me fatiguer. Vous savez que je suis très très très amoureux de ma femme. et eh. Ndeye eh, eh, vous savez non non c'est pas seulement c'est pas seulement le fait d'une beauté physique rare vous en êtes d'accord nous venons de fêter nos nos 35 ans de mariage et et Vous savez que moi, je suis, depuis que je suis enfant, depuis que je suis enfant, j'ai un comportement royal. Je, je, je, ne sais que ce que je veux. Et la, la première fois, quand je suis allé lui faire la cour, elle a refusé. Je ne comprenais pas. Pourquoi tu refuses <laughs> Mais elle me dit, mais Nobouma là. Je dis, mais comment ça? C'est pas possible. Et je vais voir euh, ma mère et je lui dis, cette fille je l'ai draguée, elle a refusé. sama yaay ne ma kon de ko ndax yow koo doxaan bu bañee rek yaruñu Et eh, je la voir, je lui dis voilà ce que ma mère a dit, mu ne ma ko. Et alors? fini par accepter. Donc ma mère avait raison. Et ça, ça s'adresse à toutes les filles. ku nga bañ seetaatal sa yar. mais mais non non non. j'avais dit ça. J'avais dit ça à Porohan. J'avais dit que le jour où je serai assez courageux pour avoir une ñaareel, ce serait euh, une Mame Diarra. Euh, puisque d'abord, elles connaissent le Coran de façon exceptionnelle. Et, ça, ça, suffit comme garantie de qualité éducationnelle et comme je vais vous raconter une histoire que Serigne euh, Serigne Moussa m'avait racontée, je pense que c'était en avril. Il Soxna Maam Jaara bi ñu bi muy war dem kër Maam Mor Anta Sali mbusoo be yëpp nijaayam yi ñu sant mbusoo dañu ko taaj di ko yeb di ko wax fii nga jëm daara nii lañu fay sàkkoo ji barke te yàlla dafa dogal maam Mor Anta Sali am alal bëlu bi am tuuti naqari deret disons ni ko wolof yi di waxe bu dee sañ nañ ko wax donc bi ko nijaay yi ak mag yi yebee ma parce qu'elle jeune euh, une jeune femme du Baol bi ko yebee ba pare di ko wax euh, bon je change les noms puisqu'il il me les a donné soxna mbeen mi wala soxna góor mi ni ñu yore seen kër seen sëy rafet na nangam na bi ñu bare mu ne leen li ma leen bëgg a tontu daal mooy soxna Maryama ndeyu yonent yàlla Isa ak soxna Aminatu ndeyu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wa bu ma maase woon ak ñoom jamono danaa nangoo bokk ak ñoom borom kër def sama jom ci ñu bañ maa gën doom mais est-ce que vous réalisez ça une jeune femme du Baol à peine je sais pas qui n'est jamais sortie de là qui transcende son espace géographique immédiat, qui transcende ses frontières temporelles et qui va se comparer à celles qui ont porté les meilleures créatures de l'univers. Donc, l'ambition, c'est ça. Et vous savez pourquoi elle a pu faire ça puisqu'elle connaissait le verset où Dieu dit xalaqal mawt wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala elle a compris quelle était sa mission sur terre c'est ça l'ambition elle n'a pas eu de complexe vis-à-vis de Marie vis-à-vis de Sokhna Aminatou elle a dit que le comportement qu'elle aurait eu si elle était leur coépouse n'avait comme destination finale que de produire l'équivalent de Khadimou Rassoul moo bu Sëriñ Tuuba bindee ne Tuuba li abdin muridin sadiqin lahu بخدمة le paradis c'est pas un lieu où on c'est un état d'esprit c'est un état de conscience où on est heureux en soi indépendamment des éléments extérieurs Donc, il dit, cette, cette joie-là, kan moo ko mérité ñu ne mouride le mouride c'est l'aspirant à son Seigneur infatigable ki xëccu rek jëm ci boroomam de façon infatigable c'est celui-là le mouride et c'est à lui qu'est dû le bonheur et le plaisir bañ ci boole kenn bañ ci boole lenn xëccu jëm ci sa borom bañ koo boole kenn bañ koo boole lenn en tout cas man sëñ Muntaxa loolu la may wax daf ne ma dama gëstu njub ba sama borom defal ma ci tawfeex ma gëstu l'islam ba sama borom defal ma ci tawféex ma gëstu sëñ Touba ba sama borom defal ma ci tawféex noonu mu ma ko defale noonu laa la ko bëggale noonu mu ma ko defale noonu laa la ko bëggale te na jàpp ni sa borom moo la gën a xam sa bopp moo la gën ci sa bopp bàyyi kook sa bopp noppul sa boroom moo la gën a xam sa bopp loo xam-xam sa bopp yàlla gën laa xam sa bopp loo bëgg-bëgg sa bopp yàlla gën laa bëgg sa bopp waaw ki la gën a xam gën laa bëgg doo ko bàyyeeg sa bopp nopp donc man na ngeen jàpp ne dara tënkuma kenn tënkuma kenn jénguma te loola am na te jàngaguma xat fakka kabla xat bassa fadla fa dur walla wanafahu jaay kenn amul capacité tënk ma kenn amul capacité jéng